docteur Cheikh Dieng ñu ngi lay nuyu di la dalal. mais maa ngi leen nuyu di la may fàttali suñuy auditeur ni ñoo ngi dalal kii di secrétaire général adjoint euh, chargé des élections euh, bu PDS waaye it euh, ji maire wu Djiddah Thiaroye Kao tey ji euh, monsieur le maire ñu gis ne euh, PDS adressé na benn euh, bataaxal ministre de l'intérieur yow mi docteur Cheikh Dieng personnellement ngir nga ñax ci ministre bi mu boole leen ci processus audit audit fichier bi moo tax ngeen namm bokk ci waaw loolu moom dafa nekk loo xam ne revendication boo xam ne parti démocratique sénégalais posé woon na ko sur la table depuis bi ñu jógee ci élection législative élection député wu deux mille dix-sept mhm. ñu gis ni njuut njaaj ak wuruj ak wor yi nga xam ni président Macky Sall dugal na ko ci fichier électoral bi ak ci processus bi ñuy dérouler élection yi. Mhm. tax na ba président Ablaye Wade waxoon ni tant que ñu ngi dem élection ak président Macky ci bii fichier électoral euh, ñun dañuy def dañuy nekk ay faire valoir rek wante président Macky Sall ci ak njuuj njaay yi ak wor yi dina tax mu gañe élection yi même bu kenn àndut ak moom ci biir Sénégal gépp mhm. loolu nag dañoo continuer di ko xeex deux mille booba ba si ba sunu jooni tey moo tax tey ginnaaw président Macky taxaw na ni dina def fichier dina def audit du fichier électoral. Mm-hmm. kon ñu ni ginnaaw ñu lii bokkoon na ci li yàgg di ko xeex di ko ñaxtu kon bu ñëwee sunu responsabilité bu ñu bëggee cohérent ak lañ doon wax démb ak bërki démb mooy ñu dem bokk ci indi ci sunu xam-xam indi ci sunu expérience. ndax parti démocratique sénégalais bokk na ci partie yi ëpp expérience ci wàllu élection fii ci fii ci Sénégal rax ci doole nag kenn mënta wax da ngay saytu élection da ngay def lu nga bëgg a def lu leer ki élection te doo ci boole PDS ndax PDS mooy seul parti d'opposition bi nga xam ne moom moo am groupe parlementaire d'opposition à l'Assemblée nationale mooy parti boo xam ne fépp foo dem ci Sénégal muy village ba gën a sori di nga fa gis drapeau PDS mu jóg mooy parti bi nga xam ni bokk na ci parti yi gën a yàgg yi gën a implanté wu ci biir Sénégal gépp euh, te mooy parti bi nga xam ne moo jóge ci nguur gi kon ku ñuy wax fa dëgg yàlla da ngay bëgg a defar dëgg élection te boolewoo ci PDS mooy ni yow da nar ay wor da nga naraat ay njuuj njaaj wante defar tëgg lu baax taxulaa jóg tey souci transparence boobu yéen PDS bu doon dëgg-dëgg soxal na leen lan moo tax bokk leen ci dialogue bi. waaw xam nga dialogue bi mu wax fa dëgg yàlla tey Sénégalais yëpp xam nañ la ko taxoon a jóg ñun xamoon nañ ko balaa mii dem te duñu bokk ci ay naxe mbaay te dialogue bi la taxoon a jóg mooy wutal yoon xàllal yoon ay responsable euh, opposition yoo xam ne ñu ngi nekkoon ak ñun ñu yendandoo di kaas di wax te bu guddi jotee ñoom palais de la république la ñuy fanaani di déyante ak président Macky Sall ñu xam ni lii ay naxembaay la kon ñun du ñu dugg ci loo xam ni naxembaay la ndax dañuy nax sénégalais yi kon dialogue boobu nag laka ko taxoon a jóg yaakaar naa objectif mat na am nañ ñi nga xam ne bëggoon nañoo fekk Macky Sall dem nañ fekk fekk ci ko kon déggatoo benn yoon ci dialogue ba ñu cee wax dara loo xam ni am na luy soxal luy lu soxal réew mi wala luy jëmal réew mi kanam au contraire l'histoire à donné raison au PDS que ñu demoon ca dialogue ba matt nañ seen loxo xam nañ ñoom dañu leen utiliser woon pour loo xam ne seen yoon nekku ci ndax ñu bëgg a dem fekk président Macky Sall euh, mënoon nañoo dem fekk président Macky Sall sans ñu woo ñeneen pour di leen dugal ci ay euh, waxu tappale yoo xam ni donc dara taxu woonu ko jóg du dul wutal yoon xàllal yoon ñu bëggoon nekk président Macky Sall kon dialogue politique bi mhm. ak audit fichier électoral bi jotewuñu dara 1993 ba léegi dialogue politique su amee su amut du tee audit fichier électoral bi du tee évaluation élection yuy génn mhm. loolu dafa nekk exercice républicain boo xam ni dafa war a am après chaque élection surtout bu nekk élection yoo xam ne dañ ko contesté tey benn sénégalais bokkul euh, ci ñooñu la di experts yi fas yéene amal euh, boobule audit ñu ne euh, sénégalais yi rempliruñu critères yi critères yooyu la mooy yan. waaw critères yi moom c' est essentiellement des critères techniques yoo xam ni ci sélection boo mën di gis ñu koy def dañ ci joxe ay conditions yoo xam ni ñay soumissionné dinañ ko remplir. Mhm. maintenant nag ñu nekkuñu woon ci comité ba sélectionné xawma dara ca la ñu def wante loolu nañ koy defee généralement mooy que ni dañuy xool rek cabinet bi nga xam ne donc ci critères yi ñu wax yëpp moo ci ëpp ay poñ ñu ni di cabinet moom moo gagné bii moo ci topp bii moo ci topp bu dee cabinet ba gañe nag amuloon euh, ay experts sénégalais yu fa déposé woon seen candidature yu àndoon ci boobu cabinet évidemment ak sénégalais donc du mën a bokk ci ci eh, ci audit bi wante pour ñun loolu amul solo kay def audit bi uh-huh. moo xam ab sénégalais la moo xam malien la moo xam burkinabé wala sud africain wala français uh-huh. ñun li ñu amal solo mooy ñanga xam ni dénk nañ leen audit bi ñu am qualification technique mais maanaam xarañ ci xam ni ñun lañ bëgg a joxoñ tuut ko baaraam ci mbir mi uh-huh. dinañ ko dinañ ko ci mën a def te ñooñu aussi ñu nekk ñoo xam ni am nañ ak mandu am nañ ak euh, ak soriwaayu mm, ci président Macky Sall ak nguuram mhm. ba duñ nekk ñoo xam ni dañuy yeew bakkan ci seen buum di leen diri def euh, naka lu dul noonu monsieur le maire wax ci projet de loi bi ñu euh, bi soppi loi 69 2000 69 29 jëm ci état d'urgence nga xam ni àjjuma ci euh, dana jaar assemblée nationale te boo mayul lundi dinañ ko voté ci euh, plénière ban jàngat nga ci am waaw déjà gis nañu président Macky Sall donc defaat na état d'urgence mm-hmm. nee da ciy xeex la lutte contre la Covid 19 loolu nag dañ ko bëgg a fàttali ñun am nañ tey un an expérience ci wàllu lutte contre la Covid 19 def nañ couvre feu defar couvre feu gis ni couvre feu bi amul benn njariñ ci euh, lutte ko lutte ci corona bi. Mm-hmm. ndax corona bi la koy tax muy law ci biir nit ñi mooy day fekk nit ñi dañuy rassemblé wu. wala nit ñi duñu respecter les mesures de euh, de port du masque wala de port correct du masque wala nit ñi duñu raxas seeni loxo parce que yooyu mooy facteur yi favoriser virus bi law loolu nag surtout ci bëccëg lañ koy gis wante du guddi surtout temps surtout temps sedd bi nga xam ni ku nekkul liggéey moo la tënk ci biti neuf dina la fekk sa kër doo génnaat ba ba set bu dul euh, bu jàmp lool kon dans ces conditions là vraiment euh, di imposer waat état d'urgence population populations kon jàpp nga ne daal euh, c'est pas pertinent day nekk mesure dafa nekk mesure bu inefficace dafa nekk mesure bu impertinente dafa nekk mesure boo xam ni tegu président Macky Sall tegu ko fenn d'accord ñun dañ koy ñaan na ko lever dans le meilleurs délais bàyyi nit ñi ñu doxi seeni soxla xam nga Sénégal hmm. li ñu gën a soxal mooy wut lu ñu lekk ak lu ñu naan nit ñi bu ñu feebaroon ba yaram dinañ dem liggéey wuti lu ñu lekk ak lu ñu naan kon nañ bàyyi nit ñi bëgg liggéey ñu dem liggéey mais surtout président Macky Sall na financer les mesures barrières fonds force Covid loolu ko tax a jóg fexe ba euh, bopp koñ boo tourné mu am raxasukaayu lox mu am euh, raxasukaayu loxo am saabu am eau javel fexe ba sénégalais bu bëgg masque mën a am masque yu doy sëkk ñoom bii woon nañu un million de masque ba tey deux cent mille masque la ci président Macky Sall defaragum loolu day wane ni wax fu dëgg yàlla la nga xam ne ñor na moom defu ko la nga xam ne nag amul benn njariñ amul benn utilité amul benn pertinence ci lay nekk bi sonal nit ñi surtout ñun askan wi dëkk ci banlieue fi nga xam ne même quatre boo ko wàccee tey couvre-feu bi gis nañ ni embouteillage bouchon yi am diggante ndakaaru bala ngay àgg yëmbal balaa ngay àgg Malika vingt deux heures ci guddi dina la fekk nga nekk ci yoon ndax doo am oto te fu six heures jotee oto boo nañ dem dans la banlieue mënuma dematuma parce que su ma demee du ma am balaa may dëpp vingt une heures jot policiers yi dañ may doo <laughs> loolu nag loolu nag dafa dekk loo xam ne dëgg yàlla ak coono ak ay jafe-jafe la ñuy indil te amul benn njariñ lutte contre le coronavirus. jeexaleeg te seetaan bi. Uh-huh. damaa bëgg aussi appeler le ministre de l'intérieur. Mm-hmm. ni ko nag état d'urgence taxul policier am droit dóore taxul policier am droit toroxalaate taxul policier am droit saaga benn citoyen que l'application de l'état d'urgence doit se faire dans le respect de la dignité des citoyens il faut que ñu respecté dignité nit ñi euh, ñu tere yi ñu jël seen i liif di dóor nit ñi ak di leen toroxal ci biir mbett mi kooku teguñu ko fenn c'est une violation flagrante de la loi et je mettre au défi le euh, le ministre de l'intérieur Antoine Diome pour que mu faire respecter la loi par la police d'abord avant mu koy fay respecté par les citoyens. monsieur le maire ci tënk rek parce que li ñu desee euh, ci simili bëriwul tey ji euh, loi financement parti politique yi coow li ñëwaat na gannaaw nag levée de fonds gu Pastef def ak it euh, sortie ministre de l'intérieur di ko ci artu tey ji lan nga xalaat ci boobu le de l'intérieur def fàttali fàttali waat et war na ko dégg bu baax a baax ni argent public argent euh, étranger warut dugg ci fonctionnement parti politique warut dugg ci fonctionnement activité des hommes politiques mhm. ndax li ñaan ci tey commande olof olof di ko tekkee naan ku la abali gët nga xool fi fa ko neex mhm. bu ay lubi LGBT financé benn leader politique bu mu jot nguur gi bu subaa Sénégal dina soppi dina soppi ñëpp ay góor jigéen su benn lobby pétrolier financé benn leader politique ba mu jël nguur gi bu subaa dina jël sunu pétrole dina jël sunu gaz te duñ ci man dara. Mhm. bu un étranger bu un étranger financé benn homme politique ba mu jël nguur gi bu subaa dina aliéné sunu souveraineté nationale te duñu ci mën dara. kon le principe il est juste argent étranger warta dugg ci politique waaye nag. bu ñuy argent étranger les sénégalais de l' étranger ce sont des sénégalais à part entière comme man ak yow ndax tey maam jaara faam ma nga nekk ma nga dëkk fii ci ginnaaw wante ña ngi ko fàlle député fële ci Italie ga mu nekkoon kon mënu ni maam jaara faam te amul droit amul devoir pour participer au financement du parti démocratique sénégalais bi nga xam ni moom moo ko def député. d'accord kon les sénégalais de l'extérieur dañoo am pour participer au financement des activités politiques des partis politiques yi nga xam ne ci la ñu bokk. et mhm. ceci est maintenant ceci étant kon de ce point de vue le ministre de l'intérieur Anta Diom a mhm. totalement faux en indexant la levée de fonds de Pastef. d'accord vraiment j'encourage. Olof Ousmane Sonko. waaw damay ñaax Ousmane Sonko ak Pastef. Mhm. donc ñoom ñu. continuer ci li ñuy def parce que ñu ngi ci seen dëgg te kenn warul leen a xoxotal tax tax tax ñu daw. d'accord léegi nag au delà de cela dafay poser la question plus fondamentale bi nga xam ne mooy euh, financement parti politique. waaw ci tënk rek mm-hmm. ku nekk ci nguur gi. tey président Macky Sall mën naa jël argent public di ci financer activité APR. Euh, donc amatul intéret pour toppatoo kii boobu. Mhm. or parti politique li ñuy liggéey ci wàllu démocratie donc loolu service public la. Mhm. mooy li euh, donc dañoo war a am ay critères de consensus ñu leer ñëpp d'accord ci ni ku am tant de député wala ku am tant de conseil municipal wala kuy def kuy def yii activité de formation de ses militants. loolu parti euh, état bi dafa war a jàppale boobu parti politique sur le financement de ces activités. d'accord loolu nag dafa laaj ñu waxtaanee ko. Mhm. am ci déggoo de sorte que on a plus besoin de l'argent des lobbies pour pouvoir financer les activités politiques des partis au Sénégal. docteur Cheikh Dieng merci beaucoup. mais je vous remercie infiniment soxna Elisabeth.